alquran di turu yàlla alquran di waxi yàlla ku ko xam gëm ko maîtriser ko di ci def di ci dindi bañ la koy daqental kookee kan la mooy Serigne Dame alquran jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal jëmm ji ñu leen indil dootul ku ku Sénégal di lam laame xam-xamam ndax lim ci def lim ci dindi lim prévenir lim wax ci lu ñëwagul bari na benn laa leen di jox ndax biñ jàppee Ousmane Sonko xel yëpp dafa demoon ci waxam ji nga xamante ni wax na ko il y mois dinañ leen tegal VAR bi du ci ñàkk ndax moom moo ni Ousmane Sonko bu ñaat bu fanaanee premier guddi kasoom sama yaakaar dina dañ ci moom ci élection 2024 bi te loolu bi mu koy wax yàgg na moo tax bu Ousmane Sonko fanaanee fële ca Sébikotane premier guddeem ñëpp dañ ni ma faw nga dem jëli ko mu wax ñu lu tax mu ni yaakaar dañ na ci Ousmane Sonko ndax loolee mënuñ koo réparer loolu réponse yooyu lañu ñu war a jël si tey sëñ bi nag gis na weneen yoon alhamdulillah sëriñ bi gis na ba gis Ousmane Sonko nam nekkee biir biir biir Sébikotane ndax buñ fàtte ni Sébikotane googee fa la fa la imaam Assane fa la imaam Ndaw nekkoon yàlla ko yàlla yërëm xaaree ko àjjana tas ñu ci barkeem te yokk leeram waaye Sébikotane googee la fa nar a xew bari na te sëñ bi fii la toog di ko gis sëñ bee ngi toog ubbi fenêtre am mel ni ku jàkkaarloog Ousmane Sonko ca la mu nekkee ca ca biir ca biir chambre sëriñ baa ngi toog jàkkaarloog li xew ci réew mi ba ci li nga xamante ni mooy insident bi xew bus yi ñuy taal jiiñ nañ ko jiiñ nañ ko terroriste yi jiiñ nañ ko ay élément Ousmane Sonko ba léegi Ousmane élément Ousmane Sonko ñi ngi indi ay preuve di ko layal loolu lépp nañ ci waxtaan ak jëmm ju tedd ji ndax sëriñ Dame Alxuraan tey révélation yi mu nar a def dafa dafa rëy révélation yi mu nar a def dafa yéeme moo tax tey émission bi bu ngeen seetloo du ba du gudd ndax révélation képp lay doon balaa boobu dañ koy bàyyi mu sëriñ daam alquran mu nuyu mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi tàmbalee sama kàddu ci bismillahi qad badahtu rajiya minhu taxaala an akuna najiya subhanahu rabban bi ahli badri rafaa diina al mustafa sil xadri maa ngi nuyu biir réew ak biti réew wax ji nag xam naa ni du man a gudd foofu laa yemale nuyoo bi incha allah sëñ bi danga ñoo yéemati ndax loo wax teg nañ ci suñu bët mais da nga génn keroog am loo wax mel ni dangay ngay dànkaafu ni nit ñi nañu tey ndax Ousmane Sonko dinañ ko jàpp lu ñu ngi koy waajal ay pexe sëñ bi seet gi ngay def di gis looloo ñu yéem te tey moo tax seet laa indi pour ñu tàmbalee ko émission bi. dafa yëmut ak lenn ci kaw suuf wa aatul buyuuta min abwaabiha bépp mbur booy dugg da ko war a jaar ca bunt ba Muhammad mhm. Muhammad nit ñi dana war a xam lan mooy seet man rek ngay dégg ci seet ma ne lu ma la wax rek. bindal téere denc ngir lan xam-xam bi ma ci yor moo yéeme ci wàllug mboolem li ci nit di def sama asaka sax yëpp ma ni nit nit nit nit jote na ci ngir ngir li ma ciy def mooy tuddal nit ki li mu weesu li lam paase la mu dundoon démb li mu paase li nekk ci kanamam billahi wal quraanil aziim kii ma mujjee seetal nii léegi tuddal naa ko ba tuddal gan yi ko war a gane si billahi wal quraan mi ngi bokk ci waa daarul mawt France la ma woowe ni ma samay sëriñ ñoo fi war a ñëw nii léegi seeti ma mm-hmm. al amin man rek ngay dégg ci seet ma ne leen nit ku ëmb ba ma joxee sa soxna ma wax li góor laam jigéen mm-hmm. loolu hôpital lañ ko miinee woon te li ci gën a yee mooy bu ma boo demoon hôpital ba ni la góor lay am bu ma nee jigéen lay am yow jàppal ni mm-hmm. ma ci loolu de man rek ngay dégg ci seet ma leen nit ki boo ma joxee sa tur ak sa turu ma seetal la ba seetal la ba yow ñaari soxna nga war a am ci sa dund yow ma ci biir soxna yi de soxna su nekk na nga war a dundee ak moom dinaa la ko wax soxna si nga xam ne dalay lay fayle dama la koy wax soxna si nga xam ne da ngay faatu bàyyi ko la koy wax soxna si nga moo lay njëkk a faatu dama la koy wax loolu amul benn sëriñ boo xam ne mën nga ko fii ci kaw suuf ku dul man laa wax seet dafa yëmut ak leen lépp aatul bu yóotee mi ne waa bi ha bépp mbir nañ koy jaar ci bunt ba booleem moo tax ku may seetal dama naan la bindal lépp loo bindee diir bu gàtt nga teg sa tànk loo passé su ma la waxee nga ne wallahi noonu la demee man damaa am xam-xam nag mu mën waaye maa ngi sant yàlla alhamdulilah waaye sëñ bi ah jafe ngaa jot jafe gis li ko waral nag du lenn lu du làqatu gi bëri liggéey bi waaye nag li ko gën a waral mooy wàllum xalwatu xalwa bi nga ko dalee dugg yàgg na ndax danga nga koo fekk ci say maamaati maam ñu lu koy duggloo ndax am ci yow yaakaar sëñ bi wàllum xalwatu boobu ni nga ci mel ak façon xalwa yi ngay dugg itam bari jërëjëf Mouhamad ci mbirum xalwatu da cee bëri ci nit ñoo xam ni seen mbir mën da ñàkk xalwa Mouhamad man dama ne woon sama taas sax duma may may may xalwa waaye ngir lan damaa am dafa am ci nit ñoo xam seen mbir yëpp dafa kale moo tax dama naan la bàyyi ban xoolal la ba noppi ba xam dana laaj xalwa wala déet su ma laajee xoolee nit ki ay mbiram bam mu noppi ba mu laaj xalwa mu ne ko bismillaahi boo jekkee nu nu dugal la ko Mouhamad xam nga man xam ngeen bu baax ni aw ma temps ndax bi ngeen ñëwee eh, gis ngeen li ngeen fi fekk ci nit ak ñi ci bitti di ma xaar ci loolu nag wax dëgg yàlla boo dajoo xalwa nit ñi soxla la ci bitti nga nekk ci yittey kenn biir loolu ci laa wut ay nit yoo xamante ni mboolem loo xam ne soxla naa ko ba ci seet gi nga xam ne man dem naa ba am na fu may toll sax seet duma ko man nit ñoo ñoo may wut ci lu bëree bëri nga xam dinaa toll foo xam ne du ma man xalwa lenn ci seet gi sax genn wàll gi du ko def billahi wal quran waaye sama nit bopp yi nga xamante ne ñoo ma jege sama ndaw yi nga xam ne ñoo may seetal sax kun seetal yow boo noppee da nga naan sëñ bi moom yéeme na tey benn waaye damaa woo naan ma sëñ bi ki nga ma boole loon ci seet gi naan ma yow laa bëgg nga ñaanal ma mu ne ko ma la seetloo rek melal ma ma maa lay ma ma ku ma la boole rek melal ni maa lay ñaanal ngir lan dañu ma damaa tuddal ba xam ne ñoom laa ko dama ko tuddal ma ne ko ma bi gis nga xam-xam dafa yëmut rek lenn ni man lu ma la wax rek bindal téere denc ni ko te loolu gis nga loolu ñoom samay ndaw lan rek kon ana sëñ bi kon waaye nag alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax ah, ku ñëw ci daara ji nag xam ni lim def boppam moom lay def ndongo yi ndax ni muy forme xale yi ah néew ma du ñu am xam-xam de waaye ci réew mi bu xare bu paree ci ndongo yi ku leen di ëpp xam-xam du bëri ndax mu ngi leen di formé ci formation boo xamante ne alhamdulillah daal la ñuy wax ndax liñ koy dàqalee sëriñ daam alquran bëgg na tamit xale yi ku ci pare mu doon sëriñ daam alquran bu ndaw sëñ bi ci loolu la ñëw ci jaaro yi bett na la ni ma la ko laajee waaye dama gëstu nag ci yow ba xam ni jaaro yi nga yor wuti nag lool yeneen jaaro yi ñuy romb ci mbedd yi. Mouhamadul Amin li ma lay jëkk wax jaaro yi bari na lool sama jaaro kenn du ko takkandoog benn jaaro waaw. fiiraangeeg jigéen fiiraangeeg jaaro bi moo ko raw laa wax ci góor ak ci kum mën a doon. yeesaa nit takk ko sax ñëw na am na si ndaam gisatuma sama jaaro. Mouhamadul mm-hmm. Amin te li ci gën a yéeme jaaro boo ko takkee wërsëg nekkati ci biirub famille suufe lool ñëpp dee la xeex Mouhamadul Amin nga am sama jaaro dir bu gàtt laa la may Mouhamad da nga tey loo dawul tee billahi wal qur'an al asim te yëmu ci de Mouhamad fiiraangeeg jaaro bi su ma ci doon wax rek rek rek day dooy sëkk ma mën a ma wax ci jaaro bi lépp lépp ñu yemale ko ci jaaro bi jaar la bopp nit ku koy takk da nga yëg ci sa bopp soppiku gu yéeme yéeme ci wàllu wërsëg Mouhamad yëmu ci mboolem ku ko ñàkk day ñëwaat ci si ko ngir lan nit ki xam nga ndax moom benn yoon la koy def nit nit ki fu mu gisul njëriñam dafa demaat moo tax Mouhamad sama jaaro yi yëmu ak benn jaaro ci kaw suuf incha allah. ah jaaro jaaroog sëñ daam yi de bëgg naa ci loolu waaye ba ma ci bëggee boobu ba léegi ñu ngi may dawloo xam naa nag jaaro yi ah. incha allah arab yi dinaa la ci fàggul benn ah, waaye nag ah, ah. dinaa xool ba xam ndax ndax ñi ci war a am ci nga bokkam déet sama waaye nga loolu nag waaye faaw bala ma ci fàggul dinaa xool ba xam ndax ci ñi ci war a am ci nga bokkam déet allah man condition boobu nag man même bu ma ciy warta am it dinaa ci am rek ndax njëriñ li ma ciy gis ci retour sëñ bi faaw ma am ci mais mais sëñ bi bu la réew mépp xamee gannaaw seet geeg yooyu noonu li mën naa ni li tax nga génn li la fëlal wàllum kàttan la faj wàllum néew kàttan sëñ bi ak Mouhamadul Amin kii laa ci liggéey gis nga Poma Ndaw <laughs> ki ma gën a soxla mooy koo dafa dem man naagu ci àddunaam ni bésam daa faatu waaw. ki amatul benn yaakaar. ki amatul benn yaakaar nga xam ne fu ne dem na fa man kooku sax laa gën a soxla ci koo xam ne day def comme bu yéegee rek daa di wàccaat Mouhamadul Amin te gis nga lu ndaw lii nii ma la ci indil diwal benn yoon benn yoon laa la wax de diwal nga dem ubbi sab kamot nga denc Mouhamad xam nga kañ koy soxla waat waaye dana yàgg lool te billahi yàlla rek laa koy seereel nit jëfandikoo na ko wàcc ma dégg na ko lii lii lii barki suñu Tuubaa nit a ko def nit jëfandikoo na ko billaahi wal xuraan nañ ko wàcc ma jugal dégg na ko ngir wér wéraay goo xamante ni wér na ko te lu ndaw la benn yoon rek ngay diw te amul benn effet secondaire lépp ci nu mu di ci ci baga ah, ah, ci kii la nu mu tuddati ci ah, ci ci xam-xam garab la lépp ci xam-xamu garab lañ ko liggéey mais sëñ bi sa kër gi li ñu jaaxal mooy nit du fi dugg ñu takk ko xala mu génnaale ko kër sëñ daam nga wax fii mboolem lu fi sëriñ dafiy ñëw. Ah, day am na yenn heure yi moom ku fi ñëw moom doo fi fekk doo fi fekk ay taalibe sëriñ nga fi fekk. da ngeen daje ak ñoom ñuy génn am na ñu génn léegi. Amin gis nga xala li ma ciy liggéey man pomaat bi donc bu ñu ragoon xala tey bu ma la ko joxee da nga dem loo xam ne yow da nga yéemu ci suñu borom barke suñu Tuubaa Mouhamadul Amin gis nga xam-xam dafa yéemut rek leen dama leen waxoon bépp mbir. nañ koy jaar ci buntu ba gis nga dëgg dëgg mbir mi nag mooy xam-xam bu leer naññi koo jëflanteel day sant sëñ waaye sëñ bi wàllum wàllum kaaraange sëriñ yi ci defar ndomba bari na waaye sa ndomba laa gis nga defar sa ndomba kaaraange ba pare garanti ko man fii laa ko gisee ndomba kaaraange gu ñuy garanti sëñ bi Mouhamadul Amin li may kaaraange gi gis nga ko sett kaw la <laughs> ak ay bootaam <laughs> xamee dul tudd loolu. <laughs> mu tudd ko nag sëñ bi. bu <laughs> may la tuuti ci bootal yi. yi kaat képp la. cinq yi nag xibla boo ko jëwal mu dem. li ci gën a yéeme ci kaaraange mooy nit ku ko takk di fayee ko weer. boo tëjee yëpp boo amul chance dara duñ la fay Muhammad. billahi wal Qur'an li ci gën a yéeme képp ku ko takk accident. wala nga xureeku xam nga li bëri na fi ne. xureeku boo ko defee. boo mën siñ daama delloo la sab xaalis. garanti gàngo. te ci yam de. war sa git da koy am. te mboolem ku doon xeex ci biiru famille boo ko takkee ñu la doon fexeel da nga koy yëkk yow ma ci gii nag am na lu ma ciy liggéey loo xam ne pour safoor yi la waaw takki der yi moom dañuy arrêté rek billaahi wal quran boo ko takkee bu la arrêté woo man si njaama xaalis ma ci loolu de geneen gu ma ciy liggéey bu ñuul la der wu ñuul lañ koy awee ku ko takk nekk ci biiru famille ñu lay xeex képp ku demob sëriñ da la liggéey boo tuddee gër ñu wan la ko loolu mosoo ko dégg fii rek nga koy déggee Mouhamad maa la ci baaxee loolu ndax ay garabi sëñ daam ay waxtaanu sëñ daam gàllaaju sëñ daam cangatu sëñ daam bokkul ak lenn lenn looloo tax ngeen koy dugg gis Allô Sénégal li ko waral nag bëri na yu kat yu tax ndax eh, ñàkk gee jot gi ñàkk gee jafe gee lijjanti sëñ daam daal mooy sëñ daam rek ndax sëñ daam àdduna bu ñu ko soxlaa mu ne la boo ñëwee 15 minutes laay wax noppi ma ko sëñ bi dama laa li ñu war a waxtaan xajul ci 15 minutes mun la kon jarul ngay ñëw man daal sëñ daam waaye sëñ daam ah wàllu wàllu wàllu kii bi nopp gi nopp boole ay nit loolu jafe na de. Mouhamadul Amin li gën a ci nopp mooy ku ma koy liggéeyal dama lay appal ab diir wala ma la ko. appal diir ci nopp loolu sëñ nga ko. waaw dama daa wax naan ab jaam dafa sëñ te garanti diggam ak boroomam waaye kon lu ma lay liggéeyal. dama la koy garanteel ngir yàlla sunu borom dama ci defal tawféex joo xam ne yaakaaruma ne mbindeef mën na ko ci kaw suuf ngir lan fas laa ci def billaahi wal quraanil aziim mosuma koo defal nit mu jaaree ko ci yoonu jëfandikoo ko na ma ko ko waxee mu woowaan ma ni ma man siñ daam li ma doon defal jàppul nopp nga ni ci fas nga koy jaare ci fas laa koy jaare ci ay jat jat lay doom moom dégg naa moo gën a garaaw ngaddu mi xàkki ma kum mi mij mi xàkkil na naa ko yemal foofu waaye li ci gën a mooy képp ku ma ko dee billahi wal xan ku mu ci mas tee dugg nga man nag damaa jëlale nit ñi naan tubaab daa naqaree nopp sëñ bi damaa digg ñu naan ñam joodo bi pël yi yor kii da nga ko yor <laughs> Mouhamad Mouhamad loolu moom noonu bàyyi beneen yoon kooku moom kooku moom kooku moom nañu bàyyi beneen yoon <laughs> bi kon xam nga ni man gëstu naa ci yow ah ok macha allah dëgg yàlla moom koy xam naa ni day mel da ngay faral di toog sama doo xam naa <laughs> ñàkk nag am na ku ma ciy jox mbir yi ah, moom koy ñàkkul moom xam naa ni da ngay faral di jàkk ak donga yi xam naa ne waaw waaye incha rabbi noonu rek. ci nopp gi ci nopp lu ma ci loolu la ci wax bindal téere denc te lépp lu ma ci wax arab rabbi képp ku ko jëfandikoo nga sant suñu borom yow ma ci biir noom nag lii nga xam ne ngeen a fekkoon ma ci door a noppi nii ba teg ko fii képp koo ci tëj Muhammad kannar la de Muhammad soxlaal ci nit lu mu mën a doon li mooy caabi képp koo ci tëj loo ko laaj bu la ko joxul loo man fi ñaam ba delloo la sab xaalis da nga ciy tëfli turu nit ki woo ko mu ñëw nit ki na la yoreel bor na nga nekk ci biiru famille ñi la war a jàppale jàppalewul wul la na nga nekk ak mbooloo ñëpp am alal amoo alal nga am ci ñoom soxla ñu lànk bañ laa jox gis nga Mouhamad mm-hmm. lii képp koo ci tëj mm-hmm. loo ko laaj mu jox la ko xëy na da ngeen a fekkoon may lijjanti beneen bi waaye Mouhamad 300 mille mi ngi sama bopp billahi wal quran bu noppi woon ma ma jox la ko su ma ko tëjee nii boo ko ubbee barki suñu Tuubaa ma jox la billahi wal quran jombul insha Allah bi bu ngeen fi bu ngeen fi a ubbi bi ko ubbi de ah, oh. yàlla lu jege la ci si si jaam bi sunu borom aalimul xayb falaa yusiru falaa yusiru ala xaybihi ahada kumpa sunu borom rek rek moo ko xam waaye nag ak ko xamal moo tax Mouhamad dañ ñun dañ dañuy sant sunu borom bu baax a baax waaye nag duñ duñ duñ bàkku waaye nag ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah ah, bu doon bàkku nag xëy na ñeneen ñi dinañ ci gis seen bopp waaye sëñ bi dafa am loo xam benn vidéo boo xamante ni fan yee dama cee jot muy tul yoo xamante ni yaa ngi ko yóbbu ci digg àll bi di ko essayé tul yi tiire nañ bal tàkkul ñu jam tul yooyu noonu jam paaka ba paaka bi lemu te tul wi du dugg sëñ bi man te li ci gën a yee mooy jam paaka bi mooy ndomba gi bu dee da ngay ci am paaka muy tegu boobu mooy ndomba gi kon lan mm-hmm. fan la dul tegoo muy laax bi Mouhamadul Amin laax bi mu la ko liggéeyalee paaka boo ko jëmalee nii bu tegoo ci sa der xam loolu amin boo mën si njàmm delloo sab xaalis li ci gën a yéeme dama ci amaat geneen ndomba goo xam ni boo ko takkee ñaq sax boo ko defee boo téyee kudd mu damm Muhammad yow ma ci loolu ci biir laax boobu ma koy togg laax bi kudd sax boo ko boo ko yëngalee mu damm Muhammadul Amin tul maa ki ko man képp ku ko ku ma soxal day ñëw ci man bu la neexee nga isa mën a ko door a fay laax ku ko yëngalee kudd kudd gi damm bi ko yëngalee kudd kudd gi damm Muhammad tul bay dëgër Muhammad xam-xam moo am ñu ne ñu delluwaat ci xam-xam lépp buñ ko tegee ci xam-xam dana noppal nanu delluwaat ci xam-xam ko defee rek noppal na sëriñ daam alxuraan mi jël dundam gépp jox ko xam-xam jël dundam gépp jox ko alxuraan ku ñëw ci daaraam ji da ngay bég ak lu ak foo mënti jóge bari na ñu fi ñëw seen aajo diisaguñ ko sax sëñ bi seen xol sedd ndax bi ñëwee ci daara ji liñ fi gis ci ndongo liñ fi gis ñi ñuy tarbiyu ñi fi gis ci ñuy sol xam-xam da xam ni daal sëñ bi nekkul ci lenn lu dul mission yoo xamante ni dañ ko fay bàyyil bu ko wéyalee ba ci yàgg dem ba ba jox ko ci keneen toog ko ci loxoy keneen jëmm yi ñoo dara jàppale ndax xam-xam bi nga xamante ni ñu ngi koy dispensé xam-xam bi nga xam ne ñu ngi ciy jàppale képp ku ci bëgg a jot waaye génnam gi xëy na nag dina bokk ci génn yi nga xamante ñoo gën a jafe ndax sëñ dàmm sëñ daam alxuraan la waaye sëñ daam international la sëñ daam actualité da ngaa waxoon Ousmane Sonko bu fanaanee guddeem gu njëkk yaakaar na dañ ci moom fanaan nag guddeem gu njëkk ñaar ñetti ba ñeenti guddi fii fële ca ca ca Sébikotane sëñ bi. Mouhamad ba ma koy wax six waa ci ginnaaw wala sept mois ci ci ci weer yu nu ne. Mouhamad te ba loola ba ma cay wax. dama ne leen ca jamono booba. benn yoon laa mos a yëkkati sama kurus te xool ci mbirum Sonko. ca jamono booba bu ngeen delloo da ngeen gisaat baax la ma doon wax. ni leen billaahi wal quraanil aziim benn yoon bu ko fanaanee priso amatuma ci moom yaakaar. gis ngeen ba mu fa fanaanee lan ngeen gis tax nañu parcem te jamono ba ma koy wax waa Pastef am na ñu ma ci woo mm-hmm. ba ma koy wax am na ñu ma ci woo waaye la ma leen waxoon ne teg nañ ci seen bët Mouhamad mm-hmm. dama ne gis nga mbir mi lépp dañu koy delloo ci xam-xam bëggee noppal. mais sëñ bi solution ci loolu. Ousmane Sonko yaakaar mën naa amaat ci moom wala. jiitu woon na jiitu woon na waaye Mouhamad mm-hmm. bu noppee dinaa la wax loolu am na loo xam ma ko waxoon subaa ñu may jël si. ci Sonko. billaahi wal Quraan bis ma la ko waxee bu subaa ñu may jël si te billaahi wal Quraan loolu am. ci biir Sonko daa am lu nekk ci biir. Sonko nu nu si mën di jotee. bay bu ñu sant yàlla. Mouhamad lii maa la wax nu nu mën a jotee. kon Sonko daa am lu ñu koy bëgg a waajal wala. Mouhamad. Eh, yemal foofu. bu noppee dinaa la ci leeral leen ci suuf. sëñ bi kaso giñ ko tëj Sëbi Xotaan fa lañ tëjoon Imaam ndaw de sëñ bi est-ce que du loolu nga ñu bëgg a junj. Mouhamad. waaw tegal foofu sa baaraam. ci dinaa ci ci wax leen ne. dama la koy baaxee sama xam-xam dama ko wanteer bu noppee incha allah dina am lu ma la ci baaxee. ay Mouhamed Sonko. nga ni nuñ ci jotee nañ jël. nuñ ci jotee nañu sant yàlla. kon askan wi génn ngir jàppale ko mu bañ a yàgg foofu ca ca ah, na ko yàlla génn si jàmm bu koy delloo mu delloo ko ak bakkanam waaye nuñ ci mën a jotee nañ sant yàlla man lii maa la ko wax waaye nag ba boobu. waaw ah, xam bu baax a baax lan laa doon wax. boobu sama xam-xam nag duma ko wanteer duma dem toog samay kurus di def samay mbir lépp lu war a xew ma xam ko ñëw fii nekk ci pénc mi lu war a xew rek ma tasaare ko déedéet liggéeyu ma noonu damay liggéey damay naan mokk ak moom lu ci man lu ci aaje wax dinaa ko wax mm-hmm. waaye nag boo waxam jot wax wax soo ko gisaloo ko ay sarax ak ay yooyu yoo xamante ni askan wi war nañ koo mën a def ak yooyu sarax yi bañ ko waree génne am na ci yun génne waaye duñ ko mëttalewul duñ ko mëttalewul ba noppi boole ko sëriñ ci ku nekk di dundee Sonko. di dundee Sonko dundee Sonko goo xam ne Sonko lii nii xanaa mel man sax man Mouhamed xam nga nit ku nit ku ñu toj kaso laa wax. waxuma Sonko mm-hmm. muy Sonko. muy Cheikh Bara ak ku mu mën a doon. dama la ciy liggéeyal une semaine boo ko defee ci kaso ma dagg sama kurus ci Sonko. man hmm. dama dem ci kenn naan ko kaame defal la. Mm-hmm. man sama daara laa ko. sama soxla yaa may fekk fekk ma kenn. sama daara laay toog ku ma soxla da nga ñëw ñu faj sa aajo incha rabbi waaye duma dem ci fenn di fa wanteer sama xam-xam dama koy jàngi fortatuma ko de dama cee sonn ngir am ko Mouhamad jàppal ni ko waaye sëñ bi bus yi ñu ngi leen di taal manifestant yi ñu ngi jug ñu ngi jàpp waa Pastef képp ku àddu ci mbiru Sonko bi ñu ngi lay jël di jàpp sëñ bi loolee Mouhamad waxoon naa leen ci ginnaaw ne Sénégal dana metti dana tar waaye yàgg-yàgg jàmm rek moo si mujj Mouhamad yal na ci réew li ma li ma li ma jaaxal ci réew mi ëllëgu Sénégal at mii nga xam ne atum jàmm la Sénégal seenum réew tàmbalee nii hmm. lan mooy ëllëgu Sénégal yal na yàlla def jàmm ci réew mi waaye tiit naa loolu ci ëllëgu Sénégal. Antoine ba mu génnee def ni xale yi li ñu doon def as terroriste la dinañ ci jël ay mesures dinañ fexe jàpp nit ñi yóbbu leen ci yoon. Mouhamad yal na yàlla def jàmm ci réew mi. Ah. Mhm. li nga gis mu tee nga ñu ko wax. Mouhamad ma wanteer sama xam. naa ne ñi ma soxal danañ ma woo am na ñu fay ñëw am na ñu am na ñoo xam am naa lu ma leen ci wax moo leen la ca passé nag te nañ ci seen bët la ci kanam it mi ngi ñëw incha bi naa leen fekk waaye nag ba booba ba booba sëñ daam lan ngay tàggoo mbokki internet yi ndax gone yaa ngi ci suuf di xaar waa di sant yàlla bu baax a baax ak gërëm di rafetlu seen seen seen seen teewaay ñaanal sun borom def jàmm ci réew mi daañu sama kàddu ci wa aaxiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin mbokki internet alo senegal wax ji leer na sëñ daam nee na Ousmane Sonko buñ ci jotee sax ak bakkan nañu daw ba fat nañu sant yàlla loolee nag li mu bëgg a wax leer na te li mu war di bëgg a wax bëri na li mu bëgg a wax itam làqu na waaye itam li mu bëgg a wax lëndëm na lool ndax Ousmane sonk mi nga xamante ni moom moo nekk yaakaaru ndaw ñu bari nekk yaakaaru Sénégal ñu yu bari jamono jii ma nga sibi xotaan ca kaso ba utal nañ ko pavillon spécial utal nañ ko chambre spéciale du moins utal nañ ko ay journalam utal nañ ko ndoxam utal nañ ko léppam ci information yi nga xamante ni jot na cee waaye ndax Ousmane Sonko mi ngi en sécurité donte ka sax ñi ngi koy sécuriser wax nag laa leen wax ndax mi ngi en sécurité ci sécuri ci sécurisation boobu nga xam ñu ngi ko koy sécuriser ndax bari na lu ñu mënta wax mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen jëf